jërëjëf mbokki importif yi mbokki tey pël bi ñu fekk si bokk na ci pël yi dàqa seet muy Thierno Amadou Ba dañoo ñëw tey ngir mu seetal ñu combat Balla Gaye Tapha Tine kuy daan dégg naa nag ay sëriñ yuy génn di wax naan mariage Zeyna Ndour bi dana tas sëñ bi ne ma kaay ma am lu ma ci leeral alerte ci danañ ci dugg ànd ci leeral dañu waxtaanee xam-xam mbokk yi jëmm xam-xam la te baatin la ku yàlla may la ne ma kaay ma wax la ñaawteef yi nga xamante ni ñu ngi koy bëgg a dugal Sénégal dinaa ko laaj ñaawteef yooyu yan la mais laata loolu nañu ko bàyyi mu nuyoog askan wi eh, Thierno Amadou ñu bàyyi la nga nuyoog mbokki improt أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد Ah, mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen dokkeel bu baax a baax a baax macha allah di ñaanal ñëpp jàmm di leen nuyu bu baax macha allah di wax ah, macha allah nañu kii dugg ci waxtaan bi incha allah ñu ngi mën leeral li ñu bëgg leeral incha allah nga ne ma tey sama yaram dafa tàng man la lu ko tàngal nga ne ma lima ma xam ci réew mi bëri na li ma xam ci dëkk bi bëri na dégg naa booy seet dangay wax nit ki ba mu fam fa tàmbalee fi mu toll ak fa yam da nga ko koy wax ci seet kon ñëpp maase nañu da nga mën a seet ci lii sax laa bëgg a xamee combat Balla Gaye ak Tapha Tine bi mais balaa nga dugg ak foofu dama dégg ñu ne da ngaa bokk ci pël yi nga xamante ni sangatu xaalis sañ ko man damay dégg ñu naan loo banque-banque lu nit ñàkk-ñàkk alal bu seet see Thierno Amadou Ba am na loo xam boo ko defalee pour mu am wërsëg day yomb dégg naa taal nit ci wàllu alal yàlla daf la cee may waaw euh, am na benn sirru boo xam ne euh, soo ko bindalee nit ki mu ci raxasoo la maanaam mu ci raxas loxoom di ci di bi dafa xaw a doy waar nag waaw maanaam ci raxas ay loxoom rek mu tàngal ko ba mu tàng mu comme fourne bi nii tàngal ko ba mu tàng su ko defee incha allah noori la koy defee mu koy def rek mu koy def rek xaalis moom incha allahu taala day ñëw rek. Thierno lay wax ni. xaalis incha allahu day ñëw rek day am rek. waxuma sax xaalis kese kese wante yére sax yére day ñëw rek dañ koy jox rek. lépp mooy dikk. lépp mooy dikk xaalis daf lay yomb yére daf lay yomb. Uh-huh. taar daf lay yomb uh-huh. lépp def lay yomb. Uh-huh. urus daf lay yomb lépp day yomb. li mu def ci sirru bi nee na bu dee urus day yomb bu dee xaalis day yomb bu dee yére day yomb te nit nag lu tax mu doon nit dégg dégg il faut mu am yére yére yu baax yére yu rafet mu am tamit xaalis bu baax a baax wante mu am tamit euh, urus bu baax maanaam urus jigéen yi bëgg nañu ko lool soxla nañu ko lool te taar la surru boobu soo koy jëfandikoo incha allahu taala bu dee am am moom mm-hmm. wërsëg yàlla dina ko andi mm-hmm. waaw foo wul sax dina jógee foofu noonu mën na jógee penku wala joge soow wala joge euh, ndey jor wala càmmoñ mm-hmm. day ñëw rek doo xam sax fu muy jógee uh-huh. bu dee yëre tamit noonu la nit ne day nekk ci àll ba ñaw yëre yu rafet mhm. jékki-jékki rek ñëw ci yow jox la yëre yooyu noonu mhm. affaire bi def lay jógee da ngay ubbeeku maanaam saafara boobu boo ko liggéeyee nit ki mu koy laal loxoom day tijjeeku lépp luy alal ak wërsëg ak xéewal da koy yomb lépp lu mu soxla mhm. maanaam bu dee wàllu alal xam nga nit yi ñoom dañu soxla xaalis xaalis moo tax ñuy sonn am na ñuy doge jógee fii dugg ci gaal yi bëgg dem bitim réew lu tax ñuy dem foofu noonu dañuy xeeb li nekk Sénégal fii dañuy wax ne suñu demul fale li ñu soxla duñu ko am loolu moo tax ñuy dugg ci géej gi dugg ci gaal yi pour dem Espagne wala beneen réew pour uti xaalis kon xaalis soo nekkee fii senegal nga bokk koo am sirru boob soo nekkee bitim réew nga bëgg koo am sirru boobu bu dee yëru ka yëre kazaalika waaw mais Thierno tey dama dégg ñu ne bokk nga ci sëriñu pël yi nga xamante nii bu ñuy seet ba wax la sarax donte sarax ba mbiskit la bu ko nit ki génnee li des si dund mën na caa bañ a ñàkkati dégg naa seet bi ngay seet mën nañ ne ordonnance la parce que bëri na sëriñ soo am danañ gis ci seet mais duñ xam ban sarax mooy saafara lii mais sa seet dafa ànd ak ordonnance mooy loo seet gis nga saraxam. ñu bëri mënuñu seet sëriñ yu bëri bëri bëri mënuñu seet dañuy làmbaatu rek wala suñu la seetalee sax benn ojo bu ndaw lañ lay defal ñu bëri dañ may woo. wax ne man de diw seetal na ma diw seetal na ma waaye bi mu dégloo seetam. Mhm. Euh, doyuma dara parce que moom dafa mel ni day lambatu man day lambatu ci li muy wax te li muy wax yëpp man xam naa ko te am na yoo xam ne sax macha allah man euh, xam naa ne loolu amul waante man suma ma ko seetalee macha allah day wax ne man seet bi mosuma ko dégg li nga ma wax nii ci li paase ak fi ma toll ak lii di ñëw mosuma ko dégg loolu moo tax yow li li ko sax dafa mel ne dafa néew dafa tuuti wax ma loolu ma ne ah waaw mbir yi moom doylu rek parce que doylu mooy alal nekkul alal bu bari bari buy buy jóoru rek mooy mooy mooy am am doylu mooy alal léegi nag ma ne waaw seet noonu la yàlla def ñu may ci seet nag uh-huh. du bakku de uh-huh. am na yoo xam ne soo koy wax macha allah dangay sant yàlla ci li ngay wax uh-huh. waaye du bakku yonent bi dafa waxoon maa ñëpp maay seen sàng wante du tiitar man tamit ci wàllu li may def liggéey bi wala seet bi du bakku du dara wante xam naa sëriñ yu bari macha allah ma leen dakk seet parce que man su ma la seetalee dinaa wax li nekk ci yow bu dee dafa am ñu lay liggéey dinaa la wax bu dee am dafa am ah, ñu lay korte dinaa la wax dafa bu dee dafa am ñeneen ñoo xam ne dañu nekk sa kaw bëggu laa yàkkal yaa xam li looy liggéey fii nga nekk wala bitim réew lépp dinaa la ko wax sarax bi ci war a war a am maanaam sarax bi nga war a def su ma la ko waxee chaque six mois nga koy def wala chaque at nga koy def lu ma la wax incha allahu taala di nga ci teg bot am na ñoo xam ne dañu xaw a dëgër soo leen waxee dara dañu la gëm parce que dañu leen naxa naxa naxa besoon na wante ku may jëflanteel rek dem lay wax ne man lépp lu may def ci yoon laa koy teg bu dee ci wàllu sunguf bi wala ci wàllu fas bi ci yoon laa koy teg bu dee ci wàllu alquran bi tamit ci yoon laa koy teg kon loolu moo tax naxaate wala war nekkul ci ñun wante dañu liggéey nag soo ñu fayee ci ci seet ñu seetal seet bu jaadu bu war boo xam ne incha allahu taala doo mer te di nga wax ne seet bi ma ko dégg lépp lu ci topp tamit ci wàllu sarax liñ la wax soo ko defee incha allahu taala lépp loo soxla ci sa aaju bi yàlla dina ko faj bu dee loo war a sàngatu ñu jox la ko bu dee loo war a takk ñu jox la ko bu dee loo war a naan ñu jox la ko lépp lu ci aju rek ordinance bi moom dina génne lépp seet boobu nag yëmbul seet boo xam ne day génne ordonnance yombul de parce que am na ordonnance yoo xam ne petit ordonnance la ordonnance ndaw yooyu wala tegul fenn wante ordonnance bu baax te am na yu bari ay ubbeeku yu bari yoo xam ne andi naa ko tey ci loolu laa bëgg ñëw après incha allah ñu ñëw ci ubbeeku yooyu nga xamante ni andi nga ko tey loo ciy wax sénégalais yi dinaa commencé ci benn sirru boo xam ne como nit ku tuuti nit ku ndaw du ko sango nit ku tuuti du jafandikoo jëfandikoo benn euh, maanaam wax ne kuy bëgg alal ku bëgg alal uh-huh. wala bëgg ubbeeku bu yaatu parce que ñetti ubbeeku moo am mhm. ubbeeku boo xam ne euh, maanaam euh, dañu ko wax ne fatun qaribul la mhm. am na ñoo xam ne boobu la am mhm. ak ubbeeku boo xam ne fatan mu bi lan la mu bi mu bi mu bi nan la alquran andi na ko am na ñoo xam ne wal fatu maanaam ida jaa nasrullah wal fatu boobu la am kenn ku ne maanaam am nga fatu am na ñoo xam ne yàlla may leen ñetti fatu yooyu yooyu yëpp fatu bi ma wax nii dama ko bind ni mu dugal ko ci téléphone bi maanaam dangay bind fatiha ba mu jeex 99 nga koy bind uh-huh. suratul waaqia 99 uh-huh. uh-huh. nga bind laay bi ñuy wax zuyyina linnaas 99 nga bind suratul sharhi mooy alam nashra 99 nga ma lahu min nafaat 99 nga bind salatul fati 99 nga boole lii nga def ko saafara nga def ko njafaan wante sunguf yi ñëwagul sunguf yi dama koy denc parce que su ma ko waxee rek gaa yi daw wante lii sax li ma wax nii ëpp na waaw ëpp na waaw jëriñoo may secret waaw parce que ñu bari dañuy génn di waneewu wala di tiitaru wala di jaay affaire loo xam ne sax di diñu la bëgg nga wax rek wante xam-xam loolu la xam-xam moom di ngay ki ki kii kii jëlee ci yow keneen jëlee ci keneen rek loolu mooy xam-xam wante lii ci alquran bi maa la wax loolu beneen bi mooy da ngay bind fatiha alam nasra 92 mhm. xam nga 92 Mouhamad lay jàpp Mouhamad lay jàpp 92 mhm. soo bindee Mouhamad loolu lay jàpp mhm. li ma la waxoon léegi 99 tur yàlla yi lay jàpp benn bi mu ngi ci alquran mooy mu tel téeméer yooyu noonu wante 92 nga bind ak faate alam nasra maanaam 92. beneen 92 faate zuyina linnaas. beneen 92 faate idaa jaa nasrullah. beneen 92 faate inna haada la rizquna. beneen 92 faate inna fata maanaam rabbana ftah baynana laaya boobu noonu ba mu jeex. Hmm. beneen 92 tur yàlla bii nii faate taslamu sahasam tur bu garaaw. tur bu mën a maye xaalis. tur bu mën a maye wërsëg. Hmm. sëriñ yu bëri moom la ñu liggéey. secret ah. euh, beneen bi faate. ahmun saakun hal un yasum moom tamit ismu jalal la tur bu garaaw la 92 maanaam 92 bu nekk loolu nga koy bind lii tamit beneen fathu la beneen fathu la beneen ubbeeku la boo xam day ànd ak ay sunguf kon ubbeeku yi tey su ma ko toppoon li ma ci andi fii tey mën naa la wax wax wax wax besoon na parce que ñi ma jëlee dañu bëri fii senegal ñi ma jëlee si ñoom dañu bëri wante be bitim réew Guinée Bissau Mali Gambie fu ne macha allah jëlee jëlee naa fa xam-xam ba Murtani kon loolu moo tax tey mënoon na la wax fatu yu bëri bëri bëri yoo xam ne nit alal lekk lay dox waaw ah. ma ànd ak yoo xam ne nit su ko jëfandikoo incha allahu taala dina gis lu bëri ci dundam loo xam ne macha allah musu ko gis ah. loolu moo tax na ubbeeku lu am solo la ah. nit yi nag dañu war sangatu nit foo mën a nekk danga nga war a sangatu bu dee yaa ngi fii wala yaa ngi bitim réew da nga war a sangatu parce que luy tax nga am nit dafa war a ubbeeku asmaan day ubbeeku suuf day ubbeeku wante yaram nit ki tamit day ubbeku nit su ubbeekuwul mënul am dara il faut nga am bayre il faut ngay sangatu il faut ngay takk il faut ngay suuru il faut ngay def yu bari bari bari pour nga mën a am li nga bëgg kon ubbeeku rek ci junj lii laa la ci wax acon numéro téléphone Thierno Amadou Ba Thierno ngi noonu affiché képp ku ko ci woo rek dina ko ki ñu sànni korte mun na def dund ak dundam gi yëpp du ci wér bu ñëwee ci yow dégg naa mën nga koo faj ki ñu liggéey tamit dégg naa am na loo xamante ni day toj liggéey bi euh, ba dara du desati ci yaramam musulaay ku ko bëgg. waaw musulaay tamit ku wax wax musulaay. musulaay tamit dafa dafa dafa dafa nekk loo xam ne mooy dimbali nit ki. parce que ñu bëri dañuy am bayre suñu amee bayre fekk bayre bi àndul ak seen mbir yàqu nag su booba lépp lu ñu amoon yaa maanaam day mujj yàqu day mujj seey parce que cat mën na ñëw. seytaane mën na ñëw korte maanaam liggéey mën na ñëw leneen leneen mën na ñëw ñu bëri nag dañ leen korte nit mën na nekk Mali mhm. sànni korte ki nekk fii Sénégal mhm. wala ki nekk France wala ki nekk États-Unis wala ku nekk feneen korte nag li koy dindi nag mhm. bari na lool ci alquraana wante bari na lool tamit ci sunguf sunguf bu maanaam uh, nit garab bu muy buumu boo xam ne nit da ci yéegoon daanu dee dafa daanu dee waxuma daanu gaa mu gaañu rek di ti wala blessé waa déedéet mm-hmm. dafa dafa dee mm-hmm. garab boobu noon sunguf bu fa jógee am na sirru tabat yara bu muy àndal mm-hmm. ak ay yeneen façon sirru sax yu bari bari soo ko defee nit ku ñu kort insha allahu taala liggéey boobu noonu ki ko defoon day dellu ci moom daanu woon ci garab bi nu mu daanu woon dee kila la defoon liggéey bi noonu lay dee bu dee ki daanu won deewul nag moom dina am problème ki la defoon liggéey bi liggéey bi day moom am problème waañ du gaañ bu dee dafa daanu woon dee nag ku liggéey bi day mujj gaañ kon affaire bi macha allah maanaam bari na mhm. pour delloo nit ki liggéey bi mhm. bari na am na ñoo xam ne soo leen waxee loolu dañu la wax reyal ma ko lañ lay wax reyal ma ko ci yenn ci yenn façon yi mhm. wante rey tamit bu dee da ngay gis ne jarul rey mën nga ko delloo liggéey bi rek mu nga delloo ko liggéey bi ñu bari dañuy wax loolu baax na ku la liggéey la liggéey nga delloo ko liggéey bi loolu doy na leen am na ñoo xam ne la rayal ma ko rek te tamit rey nit dafa doy waar loolu moo tax du ñëpp doo ko defal nit waaw mën nga ko delloo liggéey bi nag waaw korte moom li la wax noonu defal ku ñu woon su boobaa korte boobu moom incha allah dina ko defoon dina dellu ci ki ko defoon euh, euh, am na loo xamante sax ñi lay seetaan te xam nañu nga jëflante ak ñoom ñoom rek doo nañ ci seede boole góor ak jigéen ñu bëggante dégg naa noob da nga see garaaw trop waaw noob tamit sëriñ yu bari moo nañu ko dañ ko dañ koy wax rek ñi ciy wax tamit bari nañu lool lool lool wante noob nit ki dafa yombul noob nit ki yombul de nit nekk France nga bëgg ko nopp wala nekk États-Unis wala nekk Mali wala nekk feneen nga bëgg ko nopp te nit ki tamit ni mu li nekk ci boppam ak liñ ko boote xamoo ko xam nga liggéey boobu noonu du koo jël rek nga dugal ko ci xaatim wala nga fas ko mbir yi demeewul noonu il nga xool bu baax a baax a baax nga seet ko bu baax a baax a baax nga xam ne nit ki ban yoon nga war a jaar ba nga nopp ko nopp nag dañ ci am yu bëri bëri bëri fas laa lay wax tey nag li bëri damay wax alquran wante fas li ma ci yor su ma la tegaloon audio yi tey yi may yi may yi may yi may wax ci ci ci fas mhm. ak ñi may jàngal ci wàllu fas di nga waaru ci yàlla kon nit ki tamit nga fas ko bu dee da nga ko bëgg takk wala mu takka la fu mu mën a nekk mën naa ko mën mën nañu ko yeew ñu def ko fi ñu koy def ba mu wuyu si la mu nangul la ci li nga maanaam li nga bëgg ci moom bu dee da am problème loolu day jeex bu dee sa patron la wala leen ak leneen da nga bëgg mu jël la liggéey wala ci leneen loolu day day day am loolu moo tax fas wala nopp du ma wax de ñu mel ne man bëri nañu du wax loolu de wante mën naa wax ne mën naa bokk daal ñu bari maa leen moon ci ci ci wàllu ci wàllu boole nit wala wàllu nop parce que maa ngi koy defal ñu bëri fii ba bitim réew ngi koy defal ñu bëri bëri bëri te kenn ku ne macha allah couple yi ah surtout couple yi maanaam ñi bëggante jëkkër ak jabar yi waaw loolu moo bëri ah. ñi may woo ñoo ci ëpp mhm. xale yu góor yi mhm. am na ñu fii am na ñu nekk bitim mhm. wante jigéen yi am na ñu nekk fii am ñu nekk bitim réew ñu bëri dañ may wo te ñoom ñëpp seen problème mooy ki ma àndaloon de sama waa ji de daa dem wala soxna si de fan yi def ma ba waa su boobaa suñu seete mbir yi ba ñu xam yoon bi ñu war a jaar ñu xam sarax bi ci war ñu xam liggéey bi tamit nii la war a demee taa nga may fay mi liggéey yàlla su booba macha allah suñu jëflante di nga sant yàlla ba amul benn sik sak bu ci nekk wala amul benn laam-laam bu ci nekk ñu bari yónnee nañu ay sëriñ fi xaalis fekk liggéey boobu la affaire wàllu nopp wante sëriñ bi soo ko woowee dootul nangu jël wala mu bole bloqué sa numéro su boobaa nag am na ñu may woo ñu wax ma loolu ñu wax dañu mujj sax gannaaw gi ñu jot sëriñ yoo ñu wax leen li ñu leen joxoon bay nañu ko may nañu leen ko léegi dañu bëggoon ga ñaanal ñu mhm. be Suisse be feneen nag feneen fekk ñu ngi foofu noonu su boobaa ma ñaanal leen wante dañu suñu commencé dañuy wax ne sëriñ bi yow yéex naa laa xam sëriñ bi yow yéex naa laa gis wala yéex naa laa xam mhm. waaw xam nga loolu sant yàlla nit mënul der yàlla moo mën wala yàlla moo lay may xam nga ku nekk da nga am maanaam ismu sirru turu sirru ku ne da ko am am na sëriñ yoo xam ne amuñu loolu sax soo leen waxee ismu sirru duñu xam la loo wax ismu ijaaba la ismu ijaaba nag man jot naa ko ki ma ko jog tamit ci biir Casamance la nekk sëriñ bu bëri su ma ko maanaam bu bu bu bu ponkol boo xam ne sëriñ bu foor la bu siiw la su ma ko wakoon tey nga xam ko bu baax a baax sëriñ boobu nag moo ma jog ismu ijaaba wante fii ci xam nga kaas la dëkk waaye dafa ñëw fii si Dakar mu fekk ko fii nii fi ko fekk ma jox la ismu ijaab ismu boobu nag loo bëgg ñaan ak koo bëgg ñaanal ci moom ngay jaar soo jaaree ci moom nga am li nga soxla. ñu ñëw ci làmb ji jeexalee ko émission bi mm. euh, combat yi bëri na euh, mais bi ci gën a fës bokk na ci Balla Gaye ak Tapha Tine nga xamante ni mm. mm. lan nga jàpp ne moom la war mbër war a def bu bëggee ndam waaw mbër de ku bëgg ndam rek yaa xam mbër nga yaa xam keneen nga soo bëggee ndam dangay def ñi am ndam fi ñu jaaroon da nga fay jaar rek ñi am ndam nag jaar nañ fu bëri mbër moom da ngay am gàllaaj gàllaaj nga war a am war a sangatu bu baax a baax ci wàllu luy toj liggéey nag luy maanaam luy dakk liggéey wala luy dakk saytaane parce que mbër yu bëri dañ leen sànni kort wala ñu def leen liggéey wala ñu boole leen euh, jinne suñu bëggee dakk jinne boobu nag wala saytaane boobu wala dindi liggéey boobu wala kort yooyu noonu wala mu am ndam ci li muy def loolu yëpp dafa war denc moom wante mburu bi da nga ko il faut nga seet ay mbiram nga xam sarax yi a def lan la soo ko ko digalee su ko defee incha allah dina gis résultat gannaaw bi nga ko joxee sangat yi mu def lu def li mu war a takk ma takk ko wante ñaari mburu yooyu nag ponkol lañu wante nag ku nekk soo bëggee ku nekk ci ñoom ku su bëggee am ndam dina am lu mu def de parce que am na sarax yu bëri yoo xam ne il faut mu def ko wante am na ñaan yu bëri yoo xam ne il faut mu def ko su bëggee am ndam ku bëgg am ndam ci ñoom ñaar ñoom ñaar su suñu su suma su ma déggee maanaam su ma su ma su wootee woo man wala su wootee sama numéro ñu déggante su ma woo su ma woowee ñu déggante dinaa ko seetal ma wax la yi nga war a def wante dinaa ko wax tamit ñaan yii nga war a def lii nga war a sangoo lii nga war a takk lii nga war a def sarax bi nga war a def su booba incha allah di nga am ndam léegi nag kii daan kale mooy daan bëgguma sori ci yooyu parce que zaman bu def xaw a doy waar dama ci xaw a maandu rek ma wax la ku bëgg am ndam daal soo jaare ci lii wala nga wooma incha allahu taala dinaa la teg ci yoon woo xam ne mën nga am ndam waaw mu ngi noonu kon ñoom ñaar daal ku bëgg am ndam daal na jaar fi gars yi jaaroon su fa jaar incha dina am ndam ñu waaw ñu ngi ñaanal waa Sénégal di ñaanal waa addina bi yëpp di di leen ñaanal yéen tamit yàlla yóbbu seen site ci kaw wala mu gën ko yóbbu ci kaw a kaw incha allah yàlla def ko télé mu nekk ay tele yu bari di kontaan bu baax di jéggalu ñëpp nag di jéggal ñëpp lu rafet rek la ñu bëgg ñun bëgguñu wax lu lu rafetul wala loo xam ne day choqué kenn waaye suñu wax bu suñu wax ku mu choqué rek ñu ngi lay jéggalu kon ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm di sakku ñëpp ñaan yàlla ñu yàlla defal tawfiq defal ñu taysir defal ñu jàmm jàmm zahir jàmm batin salaamaaleykum wa rahmatullah euh, Thierno Amadou Ba la ñu daal lonte ngir def ak moom leeral ci waxtaanee li xew ci dëkk bàyyi rawatina wàllum baatin ak luy faj aajo jàmbi euh, gis ngeen li mu leeral ci làmb ji mbër mu ci bëgg am ndam gis ngeen ni mu ko waxee ci diggante Tapha Tine ak Balla Gaye euh, pël la te borom xam-xam la te yaakaar naa tey li mu waxtaanee ci ay siru rek képp ku am dégg-dégg bëri xam-xam mën nga caa jaaree jariñu waaye ni ma daa nga noonu képp ku ko ci woo rek di ko jot yéen ñu doon topp di ñu suivre ci MPROD TV yàlla na ngeen bëri jàmm ci darajay Muhammad Rasulullah